dal ak jàmm ci Sen Sport 221 football local la ñu koy tàmbale ak Ligue 1 sénégalaise 3e journée bi dinañu ko jouer ci weekend bi ñu gis ci nak match yu am solo yi nga xamanteni dina ci xew ñu gis ci derby bu reuy bi nga xamanteni ñu bëri koy xaar wara dox digënté Giraffe ak Jambar mën nañ ko tuddee sax ab classico Jambar bu sali moy dalal Giraffe 16h lay doon manam ñent waxtu ci ngoon ci samedi jilé AS Douane dina dalal Mbour Petite Côte dakar sacré cœur dina dalal génération foot tengej fc dina dalal NZB muy ñaari tali ci dimanche ji nak dinañu am us gore wara dalal casa sport njambur bu leuga dina dalal seneps ñi nga xamanteni ñoy stade de mbour wara jakarlo ak as pikin li moy match yi nga xamanteni war nañu ko am ci weekend bi ci li nga xamanteni moy 3 journée bu ligue 1 sénégalaise jeune défenseur sénégalais bi di Moussa Ndiaye moom nag dugal na biom bu njëkk ak équipe bi di Barcelone ci équipe bi nga xamante mooy u bi ñu naan ko juvenile A gannaaw bi nga xamee ne amal na débutam ni ki fan yi ñu génn dugal na biom bu njëkk ak équipe boobule gannaaw bi nga xamee ne dañu am victoire ci samedi yi moom Moussa Ndiaye daal di dugal benn bal ci jongante yooyu la ki nga xamante nag moom la wax Alassane Ndaw nekk foofu la ci Fatih Karagümrük cinquième bio moom kii di Alassane Ndao kon jamono yi Alassane Ndao dugal lu toll ci 5 bi ak 4 passes décisives ci 17 match yi nga xamante ne joué na ko foofule ca Fatih Karagumruk transfert kii nga xamante ne mooy Mbaye Diagne l'international sénégalais bi di évoluer foofu la ca Galatasaray kat moom jamono yi na mu dem ci English Premier League bi buñ sukkandikoo ci kayit xibaar bi di Sky Sport mu ngi xam ne ne ñii West Bromwich Albion bëgg nañoo am kii di Mbaye Diagne ci benn million ngir kii di waa Galatasaray daal leen koy abal mu ànd option d'achat bi nga xamante ne dina toll ci 8 millions d'euros juróom-ñetti millions Kaolack joué lu toll ci 17 match depuis bi tàmbali ak léegi dugal lu toll ci 11 bi ak équipe bii di Galatasaray kii di Mesut Ozil nekk foofu la ci Arsenal gannaaw bi nga xamee ne kat kii di xibaar yaa ngi xam ne ne jamono yi déggoo am na maanaam dakkal nañ li nga xamante ni mooy contrat bi doxoon diggante kii di Mesut di waa gannaaw bi nga xamee ne kat jamono yi kenn du ko jaay waaye mooy dem fu neex dina dem signé ak club di Fenerbahçe buñ sukkandikoo ci kii xibaar ñu ngi séentu ne du yàgg dara ni ki waxtu yii di ñëw Ozil mën na dem signé ak club bii di Fenerbahçe bu Papis Demba Cissé